Ah, ñu daal di koy door ji tey wax sa xalaat bi nañ ko woon ci juróomi waxtu yi Covid 19 bi ci la bokk wàllu marché yi waajtaayu tabaski bi ba ci nag yi ñu nemmeeku yu bees importé contact yi ci daal di nag wàllu science yi tabaski bi ak marché gi njëkk yi daal di yokk yi ba ci sax lu aji ci wàllu nag euh, jur gi yëpp ci wax sa xalaat bi ngeen mën a joxe seen kàddu ñu jël auditeur bu jiitu ci ligne bi 88 628 98 98. dafa mel ni dem na Assane ñu xaar mu dellu si bitim réew 33 841 22 33 ñu daal di jël auditeur bu jiite ci ligne bi allo. allo. Adama yar naat. ah. ak fi jàmm rek. alhamdulilah mi ngi jàmm kay. Mbaylaay moo nekk ci buum bi ah. Mbaylaay waa ñu ngi lay nii ñu nuyu Alassane Wade wala Socé. Hmm. bëggoon bokk ci débat bi Adama. waaw. waaw bisimilah naa bi ko damay njëkkee ci mbiru tabaski bi ak mbiru xar yi xam nga Adama loolu moom si laay yëngu sama domaine la. du ma la ci wax takkal téere damay wax sénégalais yi ni leen xar mënatul yomb boo calculer li ngi ciy dépassé man jaaykatu xar yi sax dem leen yërëm parce que dafa am ñoo xam dañ ci dugg te nekkul seen domaine donc bu ñu tiital sénégalais yi man gëm naa ne xar dana des mais nag du yomb kon jaaykatu xar yi ñu ngi xaar du dëgg damay dégg ñu naan xar yi dafa cher adama li ñuy jënd seen fësale yi mooy xaw ma létt yooyu noonu jar trois cent mille moo gën a seer xaru comme bàyyi ci sàng am na lu mu wax lu am solo maam Cheikh dafa ne suñu réew aada daf fi man diine te loolu mu wax loolu mooy dëgg aada ji xool defatuñ ndax tabaski ndax yan yàlla Ibrahima dañ koy def mbur sama dëkkandoo bi am na xar wala sama sama rakk bi su suma wuju peccor go yi am na xar dinaa jéem lu ma ko mën a amee baax na lu ma ko mën a labee lekk ba am baax na bu passé na nekk ay gudda man li ñu ma yoree si ay xaru tabaski mënu ma la ko wax def naa li a daaneel ci la bokk dootoo leen gisati jël ay matukaayam def loo mën wax loo mën ba tëddee nelaw di ñëw ci mbiru mbas bi mbiru mbas bi moom Adama hmm. yàgg nga animé débat yi ay nit dugg fi dina dina mbas bi amul doo ma weddi parce que hmm. amul ku pikiiru da ngay dee di ñooñu doon wax loolu nag ñoo duggaat ne ma ma Macky Sall moo fi indi mbas bi xoolal xoolal seetal ma loolu rek Adama seetal ma loolu rek kon ñi seen wax teguwul fenn te ku siy wax day mel ni kuy xeex li ma gën a metti dañuy ngat-ngat di mel ni kuy xeex président Macky Sall nag du fooyee bakkanam bugul ku fooyee bakkanu nit yi maa ngi dégg ay di ne di ne day jël ay yu varié di ko jox Sénégal loolu amul président Macky Sall sinon forme la bi ak Johnson Johnson boobu la commande na leer si bopp askan bi dañu yeewu boo gisee ma lay ne coow lu du fi jógee kanam la jëm lii moo tax ma la koy wax kenn na waxulu si askan te li ñuy wax dafa méngoowul ak dëgg ngir yàlla nañu bàyyi démobilisation bi ñuy def di lor sénégalais yi mbas mi ngi fi. jërëjëf ok euh, ñu jaajëfal ko mbokk moom moomu xaar keneen ñu jël ko ci ligne bi ba tey ñu woy ci biir mi bitim réew allo. allo salaamaaleykum allo allo alo waaw ñu ngi lay dégg sëñ bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw sëñ waaw. waaw ngi ziar bu baax a baax a baax. waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax El Hadj Malick. te di leen baalu àq bu baax it. Ah, ok jërëjëf ñu ngi leen di baalu àq. te di leen baal. Ah, ok jërë ngeen jëf. Eh, Adama. waaw. Eh, paas yi ci la bokk de. waaw ci la bokk waaw. man Adama paas yi moom jarutul ci wax. Hmm. booy boo rek nu bañ ko cee booleeti te lanu waxoon daaw nu tegaat ko ren rek moo fi ne at hmm. mu jot nii la bu tabaski jotee ñu yokk bu kori jotee ñu yokk bu màggal jotee ñu yokk bu gàmm jotee ñu yokk te kenn mënu ci dara te doo déggit ku ci wax hmm. kon wax ci lan lay jëriñ aadama du tu am njëriñ ah, du du du du waa commerce la ñu xaw ma ñoom war na ñoo wax ci bee yi ci lañ bokk ndax mbir mi commerce la te ñu ngi noonu attaqué mbulance yi naan ku ci def nangam yoon dana dal sa kaw yoon dana la def lii waa lu tax nag lu toll ne garage lii ñu ne garage la Ndakaaru gépp fi lañ war a dugg fi la oto yi war a départ te ñoom heure bu leen neexee yokk bi yi ak nu mu leen neexee te kenn du ŋaan jëm ci te boo waxee jëm ci ñu saaga la ñi ci war a waxit duñ ci wax seen yoon nekku ci da aadama mii réew nan lay demee ak lan la ñuy doyee kon nun gouvernement bi yow boo xëyee nga yor cinq mille francs nga ne man quatre mille laay war a paas pour dem xam nga li nga daan paas nga ne 1000 francs yi mooy doon sama frais ba daal ci laa jënd ndox jënd ci beñe ba baa may àgg fa ma jëm léegi yow nga ñëw ñu ne la mil ngay paas nga ne déet man 4000 laa daan paas ñu ne la demal toog fële sori ñu amoo fi looy wax mais aadama lii lan la ak toroxal bi ñuy toroxal nit ñi ci gaaraat yi lan la hmm. te gouvernement bi mënu ci jóg mënu ko régler mais jaratu ko dootu ko jar fi hmm. ci des mooy aadama masque yi ñu wax hmm. nee nañu euh, ministre de l'intérieur xaw ma nee ñu ku takkul masque danañ dal ci sa kaw ay daan dana wàcc sa kaw mais daan yi nañu wax nit ñi lan mooy daan yi fu mu tàmbalee ak fu mu yem nit ñi ah ñu daal di xaarati keneen ñu jël ko kon mu ngoog ponk yooyu la ñuy jukki ci wax sa xalaat ngir mën cee joxe seeni i allo salaamaaleykum. waaw ah, salaamaaleykum. waaleykum salaam ngi fi. Ah, waa ñu ngi lay fay ñun ñëpp. man la Thiam maa ngi wax si Italie. waaw ñu ngi lay nuyu Thiam. ok xam nga Adama li ma jaaxal moom li ñu dañuy wax ne ñun quatre pour cent ay musulman lañu. Hmm. Eh, donte sax ñu nekkul musulman eh, am na ci yoo xamante ni gisuñu sax ñu koy def donc du question rek eh, boo nekkee musulman war a def yenn képp ku am xel ngay nit. Hmm. doomu aadama te li ñu xam te ñu gis ne yàlla lépp lu mu saak doomu aadama la ci gën a bëgg moom la ci gën a fonk. Hmm. kon benn bis korité màggal gàmmu chauffeur yi ah, ah motu sax bis daanaka genn wàll bis la gis nga tey dama Dakar dem dikk tey ay dizaine de millions dañu perte ñu delloo nit ñi seen pass à cause Covid bi ñoom ñu profité ci fa nga waroon a fay ci ci tam dikk bi neuf mille francs léegi yaa ngi obligé ci fay ay vingt mille et quelque avec ça ñu ne julli julli julli te yërmande amul leneen li pourquoi tabaski famille bu nekk kër gu ne mënoo mënta yar benn xar tabaski dëgg la bu dee mois d'août nga commencé dina métti si yow balaa tabaski ñëw mais bu tabaski desee quatre mois dama jënd benn mbote nga yar ko nga soo yoon bañ a nekk nag ay ponkali xar nga xool li la yàlla sant rek nga def ko yàlla direct rek la soxla leneen li tamit covid bi am na gis nga fii ci Italie tey ñu ngi ci trois mille et dafa double li ñu daan am te pourtant ñu ngi am trois d donc vaccination yi am am na ci effet te biñ daan am ay jamono trois mille cas et quelque ay téeméeri téeméeri de et puis opposition yi aussi comme ñoom bu ñu ne ñu ñu génn leen jaabaarloo registre dañ koy def nañu woo seen ñi leen topp ñi nañ dem ñàkk ji bu dee ñàkk yi kay ba peut leen ñu sensibiliser leen tuuti Jeux olympiques yi déjà confirmé nañ fa ay six cas mais waa Japon ñoom huit sur dix dañ ne bëgguñu Jeux olympiques am mais ñun Sénégal lépp lu ñuy bëgg ñun dañu gëm rek di dem leneen li président amul benn intérêt di créer ay Covid pour benn bisu gàmmu am wala màggal bañu am loolu du intérêt parce que bisu économie la Jakarta bi da ci gis boppam boppam kon bu ñu manipuler askan bi. ah ñu daal di xaar keneen daal nay jeexal moom it ñu daal di woy ci jotaay bi Assane ñu jël keneen allo. allo. allo waaw. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Adama na def. waaw maa ngi fi. maa ngi lay di nuyu Socé di nuyu Assane Papa waa Sud FM yëpp. ñu ngi lay fay ba di ñaan yàlla tabaski ji ñuy waaye dugg nag yàlla nañ ci egg julli ci jàmm ak salaam. Mm-hmm. amiin. Euh, gis nañ ne Macky Sall nee na troisième vague am na ci corona bi. Mm-hmm. créé woon nañu ñeenti vaccin. Mm-hmm. Madana ak Johnson Johnson ak bi ñu mujjee créé muy booster bi ak Pfizer léegi nag nee nañu delta moo am ci li ñu wax. bon Macky nag taxaw na pour jéem a fexe pour bëgg indiwaat ay de feu léegi julli gi taxaw na nit ñi war a julli mu bëgg a seet naka la leen ni gàllankoor ci ndigalu tubaab bi léegi nag moom dafa waroon faxee deux cent million euros yooyu ñu ko jox muy ay cent et quelques milliards francs CFA loolu la war a wax sénégalais ana boobu xaalis na génn boobu xaalis jox ko peuple bi def ni États-Unis di def parce que bërki démb président bi dafa signé xale yi fi nekk yépp ku ci nekk diggante six ans ba di sept ans ku ci nag ñu yónnee la segu deux cent cinquante dollars chaque weer ñu def ko boo bokk boolu boole koog li nga xamante ne moom la ñu jox seen i parents di ko jox ñu doon liggéey di fay ay droit ci dëkk bi. Macky Sall bu dee day toppandoo ñee na génn xaalis jox ko peuple parce que peuple bi sonn nañu te soxla nañu xaalis te bis bi fu taxawalee ay cours de feu naa ci yàlla sénégalais duñ ko respecté ndax sénégalais lekkuñu naanuñu amuñu xaalis tabaski ñëw ñu war a julli. war a seeti seen papa ak seen yaay war a dimbali askani nga taxaw ni kenn du dem kenn du dikk yow say jabar ak say doom di jënd ay xar ak say xarit di ko def ci youtube bi ñëpp di ko gis sénégalais bu ñu de bu ñu toppee li Macky saal di wax doot ñu nekk ay jullit ay jullit ngeen gëm leen seen bopp am def li ngeen war a def bu leen kenn tey julli ji voilà ku taxaw seen kanam rek ci yéen la yéen la def Euh, Assane ñu daal di xaar keneen ci ligne bi 88 628 98 98 33 841 22 33. allo salaamaaleykum. Alaaji Adama. waaw. kii de Ndiakhate Caajaay moo lay siyaar. waaw ñu ngi koy nuyu ak waa Caajaay yëpp. waa Caajaay yëpp a ngi siyaar. Mhm. di siyaar sa technicien boobu soose. waaw. ah xanaa di dénk askan rek Adama di leen daan dénk rek nañu bàyyee fitna ci wax nañu bàyyee fitna ci jëf fitna xajul ci kenn. nguur kenn du xeex moom wala ngay bëgg a xeex moom wala la preuve opposition bi nag fu nu la ñuy waxee fu nu la ñuy président de la république la mu waroon a def lépp def na ko gàcce ngaalaam président Macky Sall jaanam wàcc na couvre-feu amoon na hmm. état d'urgence amoon na mu tëj jàkka yi tëj jumaa yi euh, tëj marché yi ñu ne ko président gënoon ñoo bëgg suñu bakkan ubbi marché yi ubbi jumaa yi ubbi jàkka yi ubbi marché yi ndax Sénégal boo wàññee quatre-vingt-dix pour cent yëpp ay lu luñ ci marché yi la ñuy dund man noon naa ko ubbi marché yi couvre-feu bi arrêté ko waaye julli gii ak euh, troisième vague bii am président daf ne su fekkee ne mbas mi wàññi wala Sénégal yi respecté wuñu euh, mesures barrières yi dinaa delloowaat ca booy booy ba loolu waaye newul bu kenn julli ji neewul dinaa baare ma sàmba neewul neewul dinaa baare demba neewul couvre-feu bi dina am tey wala suba nañu bàyyi avant ñuy def ci diggante président ak population bi sa li war waroon def def na Sénégalais yi nag boo wàññee fukk juróom-ñeent yëpp boo leen nee àjjana ñu ne xaar ñu mustawara ba pare doo dem àjjana loolu moo dal Sénégalais yi indiscipline moo dal Sénégalais yi. gis nga passé xalifa général ku mu yal na fi yàgg tànn ak wér. waaw ah, euh, ñu daal di xaar keneen ci ligne bi jël ko ba tey ci ponk yooyu ñu jukki 88 628 98 98 Assane ñu xaar. bi di ko waaw allo salaamaaleykum. maaleykum salaam ñu ngi lay delloo siyaar bu baax. Barka Diop Sarr 93 waaw Barka ñu ngi lay nuyu. di siyaar euh, Assane Thion grand. Mhm. Baye Omar Gueye président des diabétiques du Sénégal. Mhm. di ko ñaan nag waa émigré yi ma leen di ñaan comme sukkaru jabet yomb na foofu ngeen koy jàppale suñu président Baye Omar Gueye comme moom mooy président diabétique yi. waaw ñi dem ci wax sa xalaat bi wax ñi dem ci point ba. Euh, Adama. Mhm. corona de ku ne amul rek daa dalu sa mbokk. Mhm. ku yabu nag jéem a prévoir sa bopp. Mhm. te may wax waa Louga. tey de làmb dafa amoon Adama. may wax na gouverneur wala préfet ci bu Louga mhm. na jël matukaayam mhm. niñ ko teree Kaolack lañ ko war a teree Louga ak politiciens yi nekk Louga te mayewuñu masque nañu commencé génnewaat masque yi te xam ne lii dafa am te comme nag topp ñu ndigalu président ba fu nekk ñoo nga fay dem di def seeni affaires yi politique yooyu nan ko wàññi wala buñ ko mënta wàññeet nanu maye masque aadama loolu de laa amoon lu may wax. waaw d'accord ci waru corona bi jërëjëf. ok eh, ñu xaar keneen ci ligne bi kon eh, lool la amoon lu muy rotal ci wàllu woowu ñaari ponk ci wax sa xalaat allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. maa ngi fi. waaw yaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi ci jàmm bu baax a baax. waaw moo tax loolu sa xarit. di woote fi Italie. ñu ngi lay nuyu sëñ bi Asta Lo. maa ngi leen di ziar di nuy wax sa xalaat yëpp rek ñuy wax lu am njëriñ rek pour réew mi rek. ok jërëjëf. ko wax ne xam naa ne euh, corona nag moom am na feebar ba am bayre la moom. Mhm. ndax moom lu mu dal ci nit daañu nit ñi daañu ko xëy publier lu mu rey daañu ko wax waaye yeneen feebar yi ca des moom. Mhm. ñu ngi rey te yaakaar naa ne boo buñ duggoon Sénégal rek tey ji maanaam bés bu nekk la yeneen feebar yi rey bari na te kenn du ko wax. kon nag corona moom say ñu d'accord ne nu lu am bayra la. waaw maa ngi dugg nag toujours dégg ñuy wax ñoo xam ne dañ naan ah feebar bi amul. feebar bi nag man mii Modou Asta Lo bokkuma ci ñuy wax ne amul. ndax dund naa ko. waaw nit ki nag lu mu dund kon daal damay ñaan ñi nga xam ne toujours dañuy wax ne feebar bu amul. ah kon kenn kii kum dal koo xam ne yàgg ngeen ko dégg muy wax te xëy na ñay wax ne feebar ba dal leen maa ngi ñoom ñoo bokk position. waaw. bu ko defee ñu xam ne feebar bi moom lu am la. jara moytu bu baax. dinaa ci garab gi ma ciy joxe nag mooy ah man de moo gis sañoon ku xëy. nga am sa ndox mu tàng laal ci sa tuuti limon bu amee sa jinjeer nga laal ko ci di ko jiital si biir boo ko defee de macha allah yàlla mën na la musal. incha allah. boo ko defee ba tey ci affaire tabaski moom li yi wax ci yeew xarak ak parce que man mais boo tekkee loo yeew ñu yeewi ko réew mi amul sécurité foo yeewe man sama dëkku maam Euh, euh, euh, kii nu mu tuddati Adama. waaw yàlla xam na sama am na ñoo xam ne si ar daaw seen xar yépp lañ xëy benn bis ramasse leen yóbbu boobu ba léegi ñëmatuñu yeewaay xar. fii ne nii sama nijaay sax fi mu dëkk mën naa yeewi xar. Hmm. waaye wax dëgg yàlla ñëmulu yeewi xar ndax xar mooy yeew ñu yeewi ko. Hmm. réew mi amul sécurité loolu mooy problème bi. ah Sénégal lu bari bëgg nañ ko defal seen bopp waaye ñu ñu jiite ñoo ñu dimbaliwul. dana nga ko di jàng tam joxe na ko sëñ bi asta waaw ñu xaar ci ligne bi ñu jël ko Assane biir réew wala bitim réew. allo waaw waaw. maa ngi fi. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw. sécurité bi bu ñu na gouvernement bi jël. jënd ay drone mhm. euh, nu mu tudd équipé gendarmerie ak police yëpp. Mhm. loolu moo gën a yomb parce que course poursuite yi ak oto du du mais boo amee ay drone donc euh, ñu xaar keneen ci ligne bi ñu jël euh, Assane 88 628 98 98 beneen auditeur. ku ci bokk joti fay. allo salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum. waa assan dafa mel ni kooku xëy na day jéem a déglu boppam ci rajo ba mu amee loolay waral eh, di jéggante bi du jàppandi bu fekkee mu ngi ñuy dégg mën na dugg rek joxe xalaatam wala bu amee ku ko wutu ñu jël ko itam 88 628 98 98 allo. allo allo waaw. booy Malika na def. ñu ngi lay nuyu ak waa Malika. ok. leen baal leen baalu àq. baal nañ leen bu baax waaw. yàlla ñu yàlla boole baal ñun ñëpp ñi nga xam ne liggéey tabaski ji it yàlla teg leen ci yoonu jàmm ñu àgg ci jàmm fekk seen jàmm ci njaboot jomb sax yàlla mën naa def bu ñu tabaski wuñu sax kaay wàññeeku di waaye gis nga Adama mm-hmm. la ma waxoon maam Cheikh wax ko rek moo ci nekk gis nga ñaan fajul aaju day dëgëral yaakaar rek mm-hmm. ñu ngi ci troisième vague mm-hmm. li ñu fi wax lépp ci ay recommandation ñaar moo fi amul confinement ak mesure distance li ci des yépp takk mesure euh, distanciation physique lépp nuyoo saafonte yépp amoon na ci premier vague amoon na ci deuxième vague fu mu mujj mu ngi nii dellusiwaat gis nga mbir mi ci boppam ñaar moo ci nekk am na ñoo xam ne ñii gëm nañ ko am na ñoo xam ne ñii gëmuñu ko am na ñoo xam ne ñii ba feebar bi amee ba léegi ñuy takk ay masque dara dalu leen am na ñoo xam ne ñii ba feebar bi amee ba léegi takk ci masque ñu dara ñu ngi saafonte ñu nii dara ñoom ñaar ñëpp yàlla na yàlla boole suturaal mais li wér te wóor comme yi ñoom nee nañu am na ku mu doy takkal masque ku mu doyul defal li la doy parce que nit ki aussi nga fekk ko ci logique am bëgg ko ci critiquer du sotti. quant à problème tabaski bi ñaar moo ci am. kii wax naan boobu par exemple bu tabaski jàllee nga jënd am xar dañ xanaa yow bala ngaa jënd am xar wala am mbote da ngay tal am loo lekk. wala comme ni ko sama mbokk moom mosu ci kii loo waxee léegi ah. jënd ay xar dajale sa kër di yar di yefal nit ñëw nu fa tongaañ dëkk boo xam ne bii amul sécurité amul dara foofu loolu nañ ko mën a mais li ma lay mën a xamal ba man la koo xamal daal mooy la maam Cheikh woon daa mën fa laa góof ba léegi rek gis nga réew mii tànk ginnaaw la am du avancé bu mukk parce que ñun ñi fi nekk ñoo war a xoolaat suñu bopp nekk ci lu neex yàlla ñu def ko dëggu di jub tey wax ngir yàlla tax bu ñu ko deful réew mi ci ginnaaw rek lay dekk tànk ginnaaw dong la am lu dem fenn nee na daanaa wax sa nga ñu ko mën bu ma génnee réew mi dama yëg ni àddina baa ngi dox mais bi ma ñëwee Sénégal day mel ni fii waxtu wi dafa taxaw nañu bàyyi pom yi tey waxante dëgg te yàlla tax. Hmm. mu nga ñu xaarati keneen waxtu yi may nañu ko ñu jël euh, laata ñu yëkkati jataay bi 88 628 98 98 bii réew mi am na keneen ñu jël ko allo. allo. allo waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Adama. la béyk. ndongo la si ak Diop moo leen nuyu xam naa retour bi la ndax bu njëkk xam naa déggante nañu waaye dañoo déggantu retour bi xam naa am problème. waaw bii baax na. bii ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaar di la jaajëfal bu baax a baax di nuyu si technicien. waaw fay di nuyu wax sa xalaat rek di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ndax yéen waa Sud FM moom. Hmm. Ah, yéen gàcce ngaalaama ndax mbas ñii bu fekkente ne tey jii ni li ngeen ko doon communiquer. Hmm. nit ñi doon nañ communiquer ko nit ñi doon nañ topp hmm. kon yaakaar naa ne tey jii kon gàcce ngaalaama. ndax wax dëgg yàlla yéen nga ko communiquer ni ñu ko war a def ndax nit ñi wax nga ko guddi wax na ko ba nit ñi nag mooy maanaam kenn xamul lan lañ bëgg ndax boo def boo nekkee ab Sénégal di déglu Sénégal yi day mm-hmm. bu teyee ñu wax lii bu ëllëgee ñu wax lee mm-hmm. waaye mbas mi kenn ku ne ministère santé bi Diouf Sarr def na ci kéem tolluwaay fii lañ daan communiqué bu buñ bu ñu diisir bu nañ ñu wax ne nañ moytu kon tey jii mbas mi tey jii Sénégal tey jii Tabaski gaa ñuy tey kenn ku ne ci yaa war a am sa fulla ak sa fayda fexe ba aar sa bakkat aar sa bakkaru njaboot mm-hmm. ah, wax leen la xam ne moom la ñu war a def loolu mooy dëgg mooy yéen ñu ngi leen ñu ngi leen ziar di la jaajëfal Ah, kon ñu xaar keneen xëy na ku mujj asan ah, ñu jël ko laata waxtu wi di ñu jàpp bitim réew 33 841 22 33. ci bokk joti ku sàkkana fay bi dante loolu dalu allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. Adama. waaw. ñu ngi lay fay. ñu yi déglu Sud FM mhm. bon defe naa ci mbas mi ngeen di wax. waa ci la bokk wa. ah. waa ci la bokk wa. voilà très bien xaw ma am na xaw ma amul mais de toute façon. Euh, africains yi bu ñu xoolee bu ñu xoolee ba feebar bi def ci Afrique parce que dañu xam ne lépp dëgg la parce que tubaab yi ñoom dañu organisé wu. wax am naa feebar sa foofu la gën a méttee mais organisé wu nañu bokkuñu ak ñun suñu ñi nga xam ne suñu njiit yi nga xam ne ñoo waroon joxe bon exemple ñoom ñooy njëkk a def ay affaires yoo xam doo comprendre ban pays la ñu nekk. boo gisee sax ni ñuy werante naan am naa ak amul parce que dañuy gis njiitu réew mi ni muy doxale moom. saa yu bëggee génn day génn lu ñu bëgg a inauguré inauguré ko ne nañ ñeeni bu leen génn bu leen tabaski ji bu leen nàngam nangam yooyu moo tax nit ñi fi nii boo génnee ci mbedd bi wallaahi ak nit ñi faalewuñu leen sax yëguñu sax li ñuy wax dañuy wax ni ñoom seen yi ñu def nii kenn lijjantiwu ko ñoom ñu gisee ni xool ni ñu def ba rey seeni xar tabaski ak jàmm ak seen njaboot ñoom ñoo fi ne di wax rek mais euh, européens yi moom dañ leen di beer après bu affaire bi demee ba des des Afrique dañ leen di benn te Europe dootu seen tànk dootu fa duggati ñoom nag nañ jéem a euh, góorgóorlu def ni tubaab yi def fexe ba feebar bi jógee fii jërëjëf jëf mu nga sëñ bi daal di koy jaajëfal euh, Assane nee na keneen xaj na ci kon ñu daal di koy dugal laata ñu yëkkati jataay bi 88 628 98 98 allo salaamaaleykum. oui asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Alaaji Adama. waaw. honorable la ci Ousmane Sonko numéro 2. waaw ñu ngi lay nuyu. waaw ah, ma di la ci chef de l'État rek. parce que nit ñi dañoo fal président Macky Sall am ci moom yaakaar. loolu yaakaar boobu laa yittoo bañ mu tasa ko askan te daanaka tas na. parce que boobu moo taxaw fii. demal ba ba moom ba Fuuta ci lañ. Wuro Soogi fu ne dem naa. dem ba Matam ñu naan ko Fuuta Tampi. mu ñëw Thiès fii mais ko comme soow toog mu nee ko mu ne des na Gloria am na ko ma wax nag bëkki dee bu ja des na baasa baasa salte maanaam toog xam nga baasa yooyu def naa mbuum ak yooyu lañ ko defaree nee na ma des na yooyu muy def na di ko kër yi askan yooyu la war a bàyyi parce que nit ñi nekk ci jafe-jafe war a dund normal nekk ci jafe-jafe yi war a wutum xar wut lu ñu lekk problème transport ngi gis embouteillage bi nekk ci dëkk bi yow Adama yoo xam embouteillage bi laa ngi koy dundoom de laaj ko Moussa Thiam dem ci dëkk bi foo tourné embouteillage la man ma loolu ma jaaxal la vraiment dara la ñu liggéeyu dégg naa ko wax ministre meilleur ministre de la santé meilleur ministre de la santé yow feebar bi yokku amuloo amuloo ambulance amoo dara nga naan meilleur ministre de la santé man dama wax Adama kan nga ko nommé meilleur ministre de la santé man loolu lu ma jaaxal la Sénégal dañuy bàyyi ku kuy liggéey di décolle koo xam ne du liggéey dara dara dara dara loolu moo yàq réew mi tax Sénégal soo bokkee si biir parti socialiste ñoom ñu jébbaloo ñoom ñëpp dañoo jébbaloo ba mu def Khalifa Sall ñii wax ñëpp leen day ñëw fii ñu bituloon nit ñi ñoom ñoo yàq parti socialiste songu xale bi rek di ko bëgg a rey dégg ci luñ ko dara lu baax Macky sa kër bàyyi gale président Macky Sall delloo sa kër bàyyi gale Abdoulaye Wade sa bàyyi la sa maam la dellul sa yaay kër bu ñu ko wax maa ngi toog dellul sa kër ñii dañ lay tardé ñoo yàq parti socialiste transhumer ñoo PDS ñuy feccal guwaanaa tey jii nii ñi ngi féete fële di leen féetal émergence dañ laa bëgg a nax de te dañu dugal ci kàmb koo xam ne dafa bëgg la Mariam waxal ak sama waa Euh, ñu daal di koy nag euh, jeexal waxtu wi dab nañu xam naa diggati leen daje kattanu suñu borom ëllëg ak euh, jàmm jéggalu ci ñu desoon ci ligne bi 22h Babacar Samb ci xibaar yi ci yaatal laata boobu sud nutrition ñu daal leen koy dégtalaat jaajëfal bu baax Assane Thioune mi ngi àndaloon ci sottandikukaay bi mu ci wiiti ak jàmm biir gudd fan ak wér-wér la am ak fan fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë nga jëf.